tey nag dañu fee jël si waat comme ni ñu fi baaxoon di dikkee saa su ne xaadim rasul voyage war yóbbu ujaajam yi ci dëkk bu tedd ba màkkatal mu karam baaxoo nag taamu itamit ngir tàggatoog jaamam bii di xaadimal Moustapha ngir uti sangam bu tedd ba Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam muy nag mbégte bu rëy ci murit yépp tàggoo fii ci seen sang bu tedd bi wutali sangam bu tedd ba ca a war waaw at mu jot euh, ñu ngi ciy santaat suñu borom bu baax euh, mu ngi ñuy dolliwaatal lim bi aussi ren nag ñu ngi convoyé au nombre de 148 ñenn ñi nag ñu ngi déparé ca Ndakaaru ñu ci des fii ci dëkk bu tedd bi di Touba. waaw waaw comme ni ñu ko waaw comme ni ñu ko tàmmee di def ñaanal tamit euh, ndimbalu sëriñ bi bu baax. na nga xamante ne si moom lañ ko daan doxalee suñu borom kattanaatal ñu ci bu baax a baax ba népp nuñ ko yéenee rek mu antonoon ci jàmm am nañ ci nag yaakaar ndaxte ragal naa ne ku bàyyi fii ci dëkk bu tedd bi dégg ndigal yi nga xamante ne si moom la suñu sang bu tedd bi di Cheikh Mountakha yabee ujaaj yi bàyyi ko fii ci barab bu tedd bi yaakaar nañ ne dinañ ci am jàppandal bu baax dina am dina oyofit ci ñun ndax ab murit moom su bàyyikoo ci kilifaam mu ñaax ko rawatina mu jëm ci suñu sang bu tedd ba ragal naa ne dinañ ci am jàppandal ndax dinañu ci jàppalal bu baax a baax. comme équipe bi nga xamante ne sii ñooy saytu liggéey bi fii am nañ tamit ñeneen ñoo xamante ne sii ñoom la ñu lëkkalool foofu ñu nekk ci dëkk bu tedd ba ñoom tamit ñu am Pastef doon ay taalibe murit yoo xamante ne sii dañuy sawar a jëf ci yoonu Serigne Touba wi ñoom tamit euh, dinañ leen taxaw encadré leen bu baax comme ni ñuy àndeek ñoom di ko defee ak ñoom. bismillahi fii nii ak daara yàllaaw sari baqa abi bi fii ka yàllaaw yaa man lawal amru yaa man laa sharika lahu وسي وما للوعد لذيك يا الله وجاتك اليوم يا رمان منتجيا فوسي بما ستوفي دنياك يا الله أزاري مراسي أجو برامتي ألا ألاقي درا منك يا الله أزاري ملاسي أرجو برحمتي ألا ألاقي درا منك يا الله مليك يميني وقلبي بزار يا مليك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 سبيتين منك يا الله أنت سلام لاسي سلام تكن لي من ويا بنفسي بتين منك يا الله يا مؤمن في جنة بدر ما كدار وابلي الأمن في الدارين يا الله وبالمعيمن لس أبي استرايك ما خبيت سرا إلى الجماعة يا الله أنت العزيز الأسي أطيب إيستي إذا يقال لدول التكريم يا الله أجبرت لي إمات الجبار دون لقم كل انقضاء بلاسي لاخترت يا الله أجبرت لي إنك الجبار دون لقم كل الإداء بلاسي لاخترت يا الله كرام